te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil ma sama candidat ñu andil ma parce que dinañu toog trois heures de temps quatre heures de temps ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee di ko léegi nag. weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegsi ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha ci tey bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñi nga bëgg a yeewu ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencé campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee. yi na doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu nii mer naa gedd na di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk nit yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat Macky Sall keroog bu mu nee man doot nekkatuma candidat pare moom du suñu adversaire